environnement moom. mais ça fait plaisir et eh, j'ai toujours euh, donc di critiquer journalisme. dégg nga politique politique politique rek moo leen. lu ñu wax environnement. Oh, environnement mooy ci li ñu dund. Mm-hmm. mooy li ñuy lekk mais surtout mooy li nga xam ni moom la ñuy jébbal suñu doom si. moom la ñuy mm-hmm. jébbal suñu mm-hmm. donc les problématiques d'environnement. de développement durable dañoo nekk ay problématiques essentielles. ci sunu dund waaye maa ngi wax léegi ci bi may junj question transition énergétique mooy naaj bi nga xam ne dañ ko am. Mm-hmm. mooy ngelaw li nga xam ne dañ ko am ba doyoon ko. Mm-hmm. te pourtant tey boo demee Lumpul. Mm-hmm. boo demee Kaba Gueye boo demee jógul dëkk yi nekk yëpp au bord de la mer amuñu ko. ñoo ni dañu si waroon a fekk. waroon fekk. ñoom dañoo bëgg a nax parce que ñu bëgg a naxee mooy ñoom dañoo développé ci ressource euh, fossile pétrole gaz daanaka ñu bëri ci lañ amee seen développement ñun ñuy door a découvrir jotaguñ ci sax ñun ñu non il faut penser à la transition faut laisser ces énergies fossiles te jublu ci euh, les énergies vertes alors dañ ci nekk dans un mix intelligent parce que dañuy dañoo xool luy suñu intérêt duñu xool lan la ñu laaj ñu def ko dans un mix intelligent mmh. mix bi mooy tey objectivement les coûts coûts yi nga xam ne mooy mooy mooy accès énergie propre muy muy éolienne muy courant bi jóge ci euh, ci euh, ngelaw li mhm. muy solaire courant bi jóge ci naaj bi muy sax la houle courant bi jóge ci géej gi mhm. Mhm. xam dafa am puissance bu ci nekk ku d'accès yi ñoom ñoo diis fi ñu toll wante une fois nga def investissement yi à long terme dafa nekk loo xam ni donc dafay oyof trop ci yow moo koy jël ci benn exemple rek tey boo bëggoon jël sa kër nga def ko solaire mën nga ci def investissement wu cinq ba sept millions pour mën a am di di dispositif solaire. Mhm. xëy na génnandoo pour installer dispositif solaire ci sa kër mën naa dix wante amutoo facture du courant ba ma nekkee maire judde caaree ko mosquée euh, fukki jàkk yu mag yi nekk ci biir euh, jidde caaree kaw ak église yëpp dama leen defal installation solaire. jàkk ja nga xam ne boo jëm bu jëlee jàkk boo xam ne facture am demoon na ba deux cent mille deux cent cinquante mille ajuma rek la ñuy soxla courant taal seen ventilateur courant ajuma ba ajuma seen facture xam nga si lu mujj vingt mille vingt cinq mille boo jëlee jàkk yi ndaw yi daanaka zéro la ñuy fay. Mhm. zéro amatuñu facture courant. nga jëloon nag deux millions trois millions defal ko jàkka ji mën naa dis ci borom jàkka ji pour mu mën ko am mhm. wante après amatul facture donc donc à partir de cinq ans sept ans da ngay am euh, li ñuy wax l'amortissement total de mhm. l'investissement mhm. et loolu à long terme c'est profitable kon ñun moo ñu gën a